mbokki Sénégal mbokku àdduna bi mbokku jullit yi mbokku taalibe yi taalibe Cheikh Ahmed Tidiane yëpp rawatina kër gi yàlla boole suñu bëgg-bëgg yëpp yàlla dajale ko ci kër ga muy njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu ñu ngi leen di nuyu di leen di bég lool di kontaan di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa suñu sëriñ suñu maam sëriñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk wéram yal nañu ko yàlla sàmmal moom la am tey moom la ñu am ëllëg insha allahu taala ñaan suñu boroom li yàlla teg ci loxoom jaarale ko ci yonent Yàlla Muhammad Cheikhuna Tijaani ba ci Cheikh El Hadji Malick jaarale ko ci ay maamam ba ci ay baayam ba ci ay magam tey mu toog fi toogaay yooyu yëpp ñu ngi ñaan naal ya mu am yëpp yal na ko yàlla defal lu sut njortam ci barke yonent Yàlla Muhammad di ko yëgal ni ñun njaboot gi ñëpp ñu ngi danku takku nekk ci ginnaawam incha allahu taala ak ay rakkam Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo xafidahullah wa ajjadahu wa nasara Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz mi nekk ca daara ja ak mbooleem njabootu Cheikh Seydi El Hadj Malick Serigne Mansour Sy Jamil ak seen i rakk ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ba ci sëñ Moustapha mi ca daara ja ku lim juum suñu nuyoo xalifa bi mu yóbbaale géew mbooleem njabootu Cheikh El Hadj Malick góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu. mboolem xalifa yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi bu ñu liimee it juum waaye ñu jiital ci njabootu yonent Yàlla Muhammad muy surafaa yi ala nabi yaxtarimu xurmatahum wa azimu araadahum wa sallimu lil mustafa jaddihimi loolu la ñu njabootu Cheikh El Hadj Malick jàngal qaddimu quraychan kon ñu ngi leen di nuyu fu shérif nekk ci àdduna bi ci réew mi ñu ngi leen nuyu di nuyu njabootu Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiyallahu anhu ñi nga xam ne ñooy suñu sëriñu sëriñ ki na ca bopp ba tey di Thierno Bachir Tall ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ak rakkam bu tedd ba Thierno Madani Thierno Maki ak mboolem njabootu Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiyallahu anhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara këru diine yi buñ ci nuyoo suñu baay bu tedd ja suñu baay bu yiw bi suñu baay bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke ca Touba ñu ngi koy ziyaara jaarale ko ci rakkam soppeem suñu sëriñ di sëriñ Bachir Abdou Qadir bi nga xam ni tey moo yor kër gi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla nuyu ma waa Yoof muy suñu mbokk Laayeen waa Ceneba waa kër Baye Abbas Sall waa kër tabaarakallahu euh, Njaasaan fu waay nekk ñu ngi lay nuyu di la ziyaara discours yi ñëw Kaolack ñépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu imaam yi di nuyu muqaddam yi di nuyu instance su daayira yi ñi ko jiite ñépp fa tabarakallah ñi ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax nuyu association islamique yi nuyu képp koo xam ni yaa ngi yëngu ci wàllu diine waaye rawatina kër Cheikh Sidil Hadji Malick nuyu presse bi dinañ leen jagleel nuyoo tudd leen ñoom ñëpp liste baa ngi fi ñu fi teew ñëpp ñu teg ko ci loxol Asfiya ak Malikia mu yóbbaale leen liste baa ngi nii dinañ leen tudd ndax bu ñu waxee point de presse presse bi nga xam ni tey seen rôle mooy jàllale la ñuy wax amuñu seen fay am na ñoo xam ni sax ñu ngi koy def direct ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal mbokk yi dañuy dugg ci li ñu fi daje. ci turu collectif bi nga xam ni tey moo woote gannaaw ba ñu leen sant ci bi ngeen wuyusee ñu ngi leen di sant bu baax ku fi ñëw yal na yàlla faj sa aajo ci barke Cheikh Seydil Hadji Malick suñu sëriñ radiallahu anhu collectif Daara Mame sàmm suñu pas-pas ñoo woote jotaay bi am na avant buñ ci defoon ngir leeral leen li ñu tax a jóg lool ñu tax a jóg nag lenn la ci rek incha allahu taala dinañ leeral lu waral jotaay bi ak fan la bëgg a jëm ñu ànd ko ak yéen collectif bi nag am ñu mu ëmb te ñi mu ëmb du ñenn ñu dul ñi nekk ci xadara Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu tey ku xool jotaay bi xam ne xar kanam yi ñii ñoo ŋànk kër gi ñii ñoo ne ci service kër gi takku dank ci ginnaaw njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick tey ki nekk ci bopp di Serigne Babacar Sy Mansour nekk ki nga xam ni tey moo fi taxaw taxawaayu Cheikh Seydil Hadji Malick mooy suñu autorité suprême moom Serigne Babacar Sy Mansour ñun ñii di wax ak ñuy dox ñëpp ci kër njabootu Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala anhu nekk ci jëmmu Serigne Babacar Sy Mansour kon ku ko laal ñun nga laal ku ko laal ñun nga amal affaire ndax désormais du ñu mayeeti du ma sàmba du ma demba ku jël sa làmmiñ di ko teg ci deru xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour ñun jaboot gi ñooy wàcc te ko ak yow ndax niveau ba mu toll niveau ba mu toll moom moom niveau boobu la toll ñun nag nekk ay taalibe dinañ ko def ci yar bi ñu xamee njaboot Cheikh Hadj Malick dinañ ko def ci teggin bi ñu xamee njaboot Cheikh Hadj Malick dinañ ko def ci yoon bi ñu xamee njaboot Cheikh Hadj Malick moo tax balaa ñuy woote lii te jëmm jooju nga xam ni mooy oustaz Iran Ndao ubbi làmmiñam teg ko ci deru suñu kilifa nga xam ni du sax jëmmam moom moo ñu tax a waaye la muy wax ndax moom jëmmam intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy du ñu défendre nit cause la ñuy défendre tey entité bi nga xam ni wala darajaak maqaama bi nga xam ni moom la si Babacar Sy Mansour hafidahullah di incarné nga xam ni mooy xalif généralu tiijaan yi xalif généralu tiijaan yi kuy wax naasiril xaq bil xaq Serigne Babacar Sy Mansour mooy sa xalifa waa ñun ñuy ay njabootam ñuy teg ci deram lu jaaduwul ndax ku am kilifa bu mel ni moom ci mbaax ci yiw nekk magum yàlla mag ñu joxoon ko waaw su ñuy wax ci moom nag njabootam dina jóg wan ni ko kat góor gi yéen ñu jàngal yar ak teggin waaye am na ci loo xam ne nag ñun ñoo leen ko mën a lijjantil yéen toog leen teel ñu course bi jox ñu seeni orientation ñun dinañ jël initiative tontu ñi nga xam ne ñi ngi jug tey te dara du seen yitte lu dul c'est la famille de Seydi Hadji loolu mooy mbir mi léegi nag bind nañ ay discours war a wax li ñu wax ci biir bu ñu noppee incha allahu taala dinañ campé débat bi dina am joo xam ni dinañ intervenir incha allahu taala ki nga xam ni mooy daara Maam Maodo bii am na jeunesse euh, ki nga xam ni mooy administrateur group bi dina wax lan moo ko tax a jóg ndax ñoom ñoo jóg xalaat lii def ma seen coordonnateur ni naa wax ci seen kàddu kon du imam Jabe la woote njabootu Seydil Xaaji Maalik la woote képp ku fi ñëw ñëw nga pour dëggal sa acte allégeance ci Seexul Xaaji Maalik radiyallahu anhu loolu la rek ñëpp mënuñu waxandoo waaye nag man maay wax ci seen kàddu moo waral ubbee nañu hymne nationalu kër gi fatiha istigfaar bi siixatil xayyul qayyum salaatal fatiha teg ci jëwatul kamal ñi tagg yonent bi wane ni ñoom ñi ngi ci ginnaaw Serigne Babacar Sy Mansour ak njaboot Seydi El Hadji Malick léegi dañuy jox ki nga xam ni mooy administrateur group bi bi nga xam ni moo jub groupe bi jub na bu yàgg yàgg am ay cause yu mu doon defande lii lend la rek loo xam ni euh, fa tabarakallahu dafa ñëw am lu mu yëkkati nit ñi seen xol jub ñu ni buñ ko organiser wu nit ñi dinañ wàcc ndax seen sëriñ la ñu laal ñu ni kon nañu organiser wu jaar fi ñu war a jaar waxtaan ak ay kilifa bind leen réew mi am na yoon ñu ni nañu jaar ci yoon yooyu yoon yooyu nag bu ñu deful li ñu war a def ñun taalibe bi dinañ jug nga xam ne yow Iran Ndao loo gis ñu la incha allahu taala te duñ la mayati dara ak yow ak ñu mel ni yow incha allahu taala bil xikmati wal mawisatil xasana kon léegi programme bi nii lay tëddee kii nga xam ni mooy waxtaan ci jeunesse su daara Mamadou lu ko tax a jug mooy coordonnateur bi sëñ Bokar bu ñu noppee dinañ def ñetti discours discours yooyu nag sotti nañ ko def nañ ko ci arab ci tubaab dinañ ko waxtam ci wolof dinañ leen ko jox yéen presse bi ngeen am pour dinañ ko publier ngeen xam lan la ñu tëral ci biir discours bi incha allahu taala bu ñu noppee nag dina am ay intervenant cinq minutes cinq minutes cinq minutes Mouhamed Mbaye Oustaz Mouhamed Mbaye Abou Diallo incha allahu taala bokk ci société civile waaye di taalibe nag Euh, professeur Ousmane Ndiaye oustaz Daouda Camara ak oustaz Makhtar Sarr ndax ñëpp mënuñu waxandoo li am solo mooy ñu ñëw rek nit ñi wane ni ñun kat ñu ngi ci ginnaaw njabootu Cheikh El Hadj loolu rek ay jotaay bi incha allah bu ñu noppee tudd ñi nga xam ni tam participé nañ ci nga xam ni jàpp nañ ci mbir mi euh, di gërëm monsieur Mbeng bi nga xam ni moo ñu dalal fii ci asalaam ndax sanc ba lañ ko bëggoon defee mais comme néegu yàlla la ñu ni nañu épargne néegu yàlla bi lieu de culte la nañu ñëw fii moo gën a yaatu Aziz Aly Ndiaye démb la ma woo man xaw ma ko miinu ko ma woo téléphone ni ma dama tukki maa ngi tugal yëg naa lii waxal jeunesse bi jeunesse bu njaboot Cheikh Hadji Malick ni maa ngi seen ginnaaw incha allah te maa ngi bokk ak yéen bii combat eh, sëñ Fatah Sarr dafa tukki mi ngi États-Unis moom it yónnee na ni mi Cheikh Tidiane Tall di sëtu Cheikh El Hadj Omar al Fouti woo na ma démb ni dafa tukki waaye def na déclaration bu ngeen demee ci Facebook bi ngeen ko gis Oustaz Idrissa Diop dafa umra ji moom it woote na Oustaz Idrissa Gaye bu Thiès démb woo na ma nee na mi ngi ànd ak ñun dafa nekk gàmm ci àll bi Serigne Lamine Sall bu luga ñu ngi koy gërëm di ko sant di doomu Serigne Abbas Sall fa tabarakallah ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax mention spéciale def na waxtaan nee na lii ñuy def moom lañ ko defal Oustaz Kabir Sène ca États-Unis rajo États-Unis ba fa ne def na ci démb waxtaan Oustaz Makhtar Sarr fa tabarakallahu mi ngi ànd ak ñun àndi na tereem moom it ñu mi ngi ànd ak ñun Papa Laye Samb di secrétaire général mboolem taalibe yi nekk France ñëw na mi ngi fii ci jotaay bi jóge ba Europe ñëw ngir fa tabarakallahu yeesal seen pas ci njaboot Cheikh Hadji Malick soxna Ayda Mbène Diop di doomu Serigne Dame Diop Mansour bi ngeen miin moom it ñëw na moom it tabaarakallaahu wane ni ci kër gi la bokk ci turu baayam Jibril Wade di meeru Biscuiterie yi ndax gox bi goxam la moom it nee dafa tukki mi ngi ànd ak ñun fa tabaarakallaahu ah sëñ Mor Diouf moom it si mi ngi si moom it mi ngi ànd ak ñun ndax ci groupe bi la bokk nee na mi ngi ànd ak ñun bu baax a baax ñu ngi koy gërëm di ko sant groupe whatsapp défendre xadara bi Moustapha Niang mooy président bi ànd ak délégation moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm action sociale xadara bi Moussa Diouf moo ci nekk moom it mi ngi sant di gërëm waa actualité xadara bi itam ñi ngi fi ñeneen ñi dinañ ko bind ci liste ngeen wan ni kër gi yépp ñoo takku ñëw ngir wane ni ñun taalibe yi ñoo jël initiative incha allah bis ni ki tey lu ëpp tuuru kenn du laala ci xadar Cheikh Seydil Hadji Malick te ki nekk ci bopp li Serigne Babacar Sy Mansour Chérif Ibrahima Aïda ak Tidiane moom it yóbbante na nee na ngi ànd ak ñu jotaay bi mi ngi bég mi ngi kontaan teew bii ñu fi teew moom lañ fi teewal donc ñoom la ñuy bu ñuy tëj ñu tudd presse bi comme ñu dugg ci liggéey bi Serigne mbokk yi ci jotaay bi ak fu mën a nekk ci àddina bi tey bàyyi xel jotaay bi jiital ci mbokk yooyu ki yàlla jiital ci bopp réew mi di alxaaji Macky Sall jiital ci mbokk yooyu ki yàlla jiital tey ci yàq sunu ruux muy sëriñ Babacar Sy ibnu seex alxaaji muhammadul mansuur mu maam seex sidil xaaji Maalik ci mbokk yooyu ki fi teewal tey sëtu sidi ahmed tijaani shérif yi di Serif Abdul Muttalib ak Tijaani ci mbokk yooyu kilifa gee mag tey ci njabootu Seexul Xaaji Omar Taal alfuuti di Sëriñ Cerno Muhammad Bachir Taal ci mbokk yooyu kilifa gee mag tey ci njabootu maam Borom Tuuba di Seex Seydi Muhammadul Muntaqa Mbakke ci kilifa yooyu mbooleem parti politik yi walla ñuy dawaayir yi walla ñuy mbooleem kuréel goo xam ni yaa ngi yëngatu ci tasawuf walla sax kuréel goo xam ni yaa ngi yëngu rekk ngir tasaare njàngaleem lislaam waaye itam kilifa yi nga xam ni ñoo teew tey nii ci sunu kanam ñii ñëpp ak ñi sore ñoo ngi leen di boole baatub assalaamu aleykum wa rahmatullahi ci kilifa yooyu sëriñ Cheikh Tidiane Ba ca Medina Gunaas ci kilifa yooyu sëriñ Mahi Niass ca kër sunu maam alxaaji Abdoulaye Niass ak mboolem këri diine yi ak ña fa toogal ña taaloon taali diine yooyu noo ngi nuyu ñëpp noo ngi wàccee ñëpp seen wàccuwaay noo ngi ziyaar ñëpp ziyaar yi yàlla suñu digéeg ñoom mbokk Tiwaawoon day représenté lu rëy day ponk bu rëy day monument bu rëy boo xam ni fii ci réew mi la sampe waaye ñu samp ko ci ëtt bee di ëttub maam Seex Sidil Haaji Maalik Tiwaawan ci biir réew mi ak ci bitim réew dëkk la boo xam ni xame nañ ko jàngale diine waaye yar nit ba mel na yàlla bëgg lii di xur ci réew mi ci diine te waawoon participer ni ci ñi fi mel na yàlla bëgg bëgg ku ñu am teg la ci yoon woowu ba nga mel na yàlla bëgg ñu bari ci ñoom ci waawoon lañu aju ku leen dàq fa la ñuy daw jëm lu ñu amit fa lañ koy yóbbu Tiwaawan day daara yoo xam ne xam-xam bu sell waaye day yarukaay boo xam ne yar la ci jikko yu sell musul deñ di tabax ay nit di leen tasaare ci biir réew mi ak ci bitim réew ñooñe di tabax ay nit te ñoom ñëpp kees gi leen mool moo saisi woon Tiwaawan di Seex Sidi El Hadji Malick góor góor di Sidi El Hadji Malick ku yër dundam ku jàng dundam téere ba ko doon yëre xët moo wëlbati rek daa fekk mu feese dell ci xamal la ni góor a ngi bu yaru góor a ngi bu sell góor a ngi gu mel ne yàlla bu Seydi Hadji Malick te noonu mu mel dundam lépp mooy di ñaan yàlla noonu mu mel yàlla ci sax ba dajeeg yàlla waaye yàlla ñépp mel ni bañ dajeeg yàlla demoon na ba àgg ci bëgg ñépp mel na yàlla bëgg yëpp ni nim ko bëggee mënee gu ko noona mu ni fi yëlbandim réew mi dem ba ca wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am yéene jeexal sa dund waaye yëgaat la mu yëgaat xam ni nim mu bàyyee woon ak lim doon ñot ñotee kës néew bu nu fi bàyyee dem dana fi bàyyi ñu ñu yées ndax la yonent yàlla noox ni woon yàlla ñii kenn baaxu ci ba yemoo jëlee fi ñëpp ndax boo leen fi bàyyee kuñ fi indi doo baax loolu ba ko maam Seydil Hadji Malick yëgee la ni naa dellu rekk bay ca tool ba la ma mën a bay defar ñi ma mën a defar tasaare leen fa ma leen mën a tasaare luñ ca man rekk doy looloo looloo ko delloo si waat ci réew taalaat jàngu yi tasaarewaat daara yi defaraat nit ñi yebalaat leen ci seeni biir mbokk ngir ñu defari leen góor noona mu mel ci ay jikko yu sell da caa bokkoon mën a yenu loolu jàng daal nangoo dékku léppi natt yu bawoo ca yàlla ñu xës ci kaw mbaa yi natt yu yàlla yi jaarale ci làmmiñi ay noonam mu tenir lépp ngir lim bëgg jàngale na ko rek jàngale noonu mu meloon googu ci mën a dékku natt yi da koo dund waaye da koo sax a bind jàngale ko waaye da caa sax yar ku mu am bokk sax ci ay xalawaatam jotaay yam daan wiital boroomam di ko wax ay soxlaam di ko wax soxlay jaamam daan na fa dee yàlla naan ko maa ngi lay ñaan rek nga may ma xol bu mën a muñ bu mën a bu mën tasaare li ma la bëgg a tasaaree te mooy sa téere bi ak njàngaleem sa yonent bi ak bi ci naan yàlla nan ma mayaale lépp loo xam ni nit ni man teg na ma ko moo xam jëf la ko defe moo xam wax la ko defee may ma rek xol bu ko mën a mun bu ma yàqal dara ci li ma bëgg jàngale ak bi ci ni yàlla maa ngi lay ñaan itam ñooñu may ma laa biir bu toll ne luñ ma def mu jëllale mel ne yëgu ko waaye lu ci rëcc ba ma yëg ko naa am xolu jéggal leen ko góor googu ak ci ni yàlla may ma luñ ma def ba basariyatu te mooy ak nite feeñ ci man ba loola naqari ma yàlla may ma ak dëgër gu ma mën a nëbbee sama mer ba kenn du yég ni tey góor gi mer na ba tee maa jàngale li ma bëgg a jàngale àgg ci ni yàlla maa ngi ci biir ñoo xam ni ay nit a ngi ci ay soppee ngi ci ay noonu ngi ci néew ni ci moos koy defal njëkk mu fay la njëkk loolu waaye néew ni ci ñoom koy fasanteel kóllëre mu matal kóllëre boobu waaye yàlla may ma muñ rek ndax muñ yàgg-yàgg mooy góor googu noona mu mel loola mu bind loola mu jàngale te kuy buuru yàlla noonu nga mës a mel ko doon ne ca seen yonent sallallahu alayhi wa sallam lu ne def nañ ko ko ngir rek doo fi jàngalee lu ne dégg na ko ngir rek doo fi jàngalee waaye yéene gim yéene ñi mu bëgg a jàngal tax na lu mu dégg rek sëgg mu jàll lu mu ko mën a def mu jéggal leen ndax bu leen jéggalul dootu fi dese kuy jàng te jàngale lañ ko sant loolu ku ko donn donnaale ko ci loola ku ko fi wuutu yàlla nattoo la lam nattoo woon ki nga wuutu te muy sallallahu alayhi wa sallam góor googu noona mu mel da cee yar ay taalibeem noona mu mel da cee yar ay njabootam noona mu mel da koo def muy programme njàng ci mbooleem daara joo xam ni njàngaleem lañ fay jàng waaye ak déggam gum dégg alxuraan ak déggam gum dégg njàngaleem ki ñu doon jottali alquran alquran di wax ni moytu leen fekk fitna muy nelaw ngeen di ko pëkk-pëkkal ndax bu nee bëreet moom fitna yow mi ko yee yaay njëkk yëg ni yeewu na waaye dana àgg foofu ba nga koy yee bëggoo woon mu àgg fa buur ni kon moytandiku leen di yee fitna Seydil Hadji Malick ak noonu mu toll ci xolu jaam ñi waaye ak njaboot yi mu am ci biir réew mi ni ñu tollu ci réew mi bu jàngale ku leen waccu puub leen ko jàmm dootul des ci réew mi waaye itam xuloo xiiroo ŋaayoo dootul jóg ci réew mi maam Sidil Hadj Malick loola di jikkoom dim njàngaleem maam Seydil Xaaji Malick loolu di yariñ wu mu yare ay taalibeem am nag ñooñ ñoom la yàlla nattoo làmmiñ wu ñaaw ŋaam wu yaatu rëy ay wax néewi teggin saa bu ñu àddoo bu doom toogoo nag way juram dina am ci ñoom kurus saa bu ñu àddoo bu góor toogoon ak soxnaam dana ci am ku sëgg ku mel noonu ci làmmiñ wu ñaaw waaye ci kersa gu néew yàlla nattoo ko làmmiñam wu ñaaw woowu léeg-léeg mu diri yu ñaaw tuur ko ci ëttub Seydil Hadji Malick boobu waaye itam léeg-léeg mu jël yu ñaaw teg ko ci deru njabootu maam Seydil Hadji yooyu ki ci mag tey di Serigne Babacar Sy Mansour jëf yooyu nag te mooy di tudd lu ñaaw di ko jàllax jëme Tiwaawan ak di jiiñ yu ñaaw kilifay Tiwaawan yi kiñ ci gën miin kenn la ci mooy Iran Ndaw Iran Ndaw bu ngeen ko xamul mën naa leen wax mooy kan soo nee Iran Badiane duñ ma xam Iran Ndaw ngay wax Iran Ndaw fam bokk jur dong lañ ko def léppam léppam léppam ci waa ko ko defal bër bërki démb ci rëy làmmiñam toog na ci seen kanam ni waa Tiwaawoon sax ñoo ko xarafal ku tàmbaleek yow foofu bàyyeegu la génneewu la beddiwu la sànniwu la bu dee xam-xam booy waxe foofu nga ko jàngee bu dee jikko nga amee jooy yaree foofa lañ la ci yare bu dee teraanga jooy tiitaroo la foofa nga ko jëlee walla barke foofa moo jur sa teraanga yooya kooku boo amee ngore di ak la boo amee lammiñ wu ñaaw waroon ngaa seeti feneen foo koy diri jëme fu dul fii jikko jooju nag te mooy jii ci irandaw wenn raba ko am ci rabi àll mooy rab woowuy ŋaax mbaam bu maree topp àll bi fu mu mës di naane bu demee fekk ndox ma jeex muy wër rek ak maram foo toll di jégg muy jooy bu àggee ci teen fekk paanu jàmbur bu mu root mbaa mu agsi ci pind fekk fa kuy root taxaw di ŋaaŋ nga xam ni daa mar nga root jukkil ko sottil ko mu naan ba màndi mbaam day wan bi ginaaw ubbi buntu gannaaw ba sànni fa ngelaw lu bon wéq ba ni yàlla teen bi ni mel kon ku Tiwaawan defal sa lépp boo ma tee ñaawuk lamiñ war a teggi Tiwaawan jëfam yooyu nag doorul tey da ko tàmbale muy màgg ba agsi fii mu agsi te wóor na ko ni li ko taxa agsi fii mooy boobaak léegi mi ngi wax te kenn téegalu ko téegal googu muy xaar nag lañ bëgg yëgal ñëpp ni jot na téegal yi jot na mbooloo mi nga xam ni mbooloo mii nga xam ni ñoo ñoo ñoo sumb lii ñu tuuti lañ li ngeen gis ni lu tuuti lañ te la ca biir ko ëpp ëpp leen ni engagement ci zahir ak ci baatin ci zahir ak ci baatin daara maam Maodo wattu sunu pas-pas jóg ni lii nag nëpp nëppal gi àgg na ci léegi mi ngay nëpp nëpp gi àgg na ci mi ngay xeeñ mi ngay gélli sàkk ci pexe nag moo ci des mooy gas suul mu yem fi gas suul mu yem fi loolu la collectif Daara Maam Maodo wattu sunu pas-pas di yëgal àddina bi ñëpp ni Iran ndaw di ko tudd sax di ko idaafa ci turub oustaz tooñ oustaz yi la dub jàngalekat dub yarekat ñu ko raw fuuf ëpp ko lépp ba mu des yaree di ko ñi ngi ci ronu kilifa gi muy gii jëmboore di Serigne Babacar Sy Mansour ci xam-xam ci yar ci teraanga ci daraja ñu ko ko ëpp ñu ngi déglu Serigne Babacar Sy Mansour kon bu fi jéggee ñooñu di giija xalifa bi loole lañ bëgg mu dakk loole lañ bëgg mu doy loole lañ bëgg mu yam fi képp koo xam ni itam moo xam yéen boroom caméra yii la ku ci dékkati sa micro Iran yéen borom télévision yi ku ci ibbeeti sa télé jox sa micro Iran Ndao yéen ñiy tànt daayira yeeg ñiy tàkkusaan ak ñiy cant ak ñëpp laa wax ku ci tàntati takk say rajo jox mikoro ba Iran Ndao muy wax di giije mboore tiwaawan mbaa kilifay tiwaawan daañ leen téegal loolu ne ko ñëpp xam rawatina borom caméra yi borom télé yi xam nañu làmmiñam wu ñaw ak lu bon ni mënee gaaw a tasaaroo ku ci bëgg lu bon loo tasaare ji rek sa xel ci Iran Ndao ku ci dëkk ci Ndao micro lii di internet bi njariñ la loo xam ni mënoon nañ ko jariñoo ñu jullit ñëpp mën ci jariñoo yiw àddina mën ci jariñoo yiw àllaaxira loo bëgg a jàng loo bëgg a wane loo bëgg a jaay lépp mën nga ko ci internet bi internet boobu jaarukaay la waroon na doon wu ñu jariñoo moom ko nag nun jullit ñi ndax yonent moo ni njariñ alal lu jullit la fu mu ko fekk na ko jël jariñoo mooy borom waaye moom internet bi warul woon a nekk buntu koo bëgg saaga saaga ko ndax ni caméra doo fi nekk koo bëgg saaga saaga ko ndax sa téléphone doo fi nekk ku bëgg a saaga saaga ko ndax làqati ci sa ginnaaw clavier loola boo daanelee la ngay def ñëpp jot ci xam-xam bi ko def xam-xam boobu itam dese na yow mi ko def fa nga nekk mënees na la faa fekk xam-xam bi maye kilifa ñëpp jot ci xam-xam boobu foofu nga toog saaga ko mënees na la faa fekk loolu ñu ko ñëpp xam loolu la collectif Daara Maam Maodo wattu sunu pas-pas ni daañu woo àddina bi ñépp ba ñëw ñu yëgal leen lii ñu nar wax nañ nag jiital ci ñu ñuy waxal borom réew mi wax nañu ak ki ñu denk sécurité réew mi wax nañu ak kilifa yi nga xam ni bu ñu fottosoo rek lépp dal te ñoom seen xaal addina ba ñuy dund ak ñun bi ñuy dund bokkul sëriñ Babacar Sy Mansour mii muy teg baat bu jëlee kurusam day ñaanal Iran jàmm ak ku mel ni moom bàyyam maam Mansour góor gi ëmb na dong la déggul lu ko raw bàyyam maam Mansour lam daan dégg sëriñ Babacar Sy Mansour mii déggagul asaka ji te da koo muñ ba léegi muuñ agsi na yoon woo wala Serigne Babacar Sy Mansour mii jël du mës àddu walla muy naqarlu wala muy ñaawlu lii di bàyyi ko ci làmmiñu ñu ñu bon ñi di dal ci kawam te naqari na ko de boo ko jegee xam ni boroomi njaboot yi ku bëgg a jóg mu téye ku bëgg a wax mu mu mu mu aaye la lii ñu samp tey buñ ko ci tàggu woon mu ni bu bu bu mu ci dal ku mel noonu fottosoom mën a lijjanti lu bare. wax nañu ak moom na fotosu Iran ba lii bu ko bawul dana fotosu waat ndax dinañu àtte ak Iran loolu na ko ñëpp xam loolu na ko ñëpp xam fi ñuy daanele mooy daara jee mu naan daara Serigne Babacar Sy li fi nekk maa ko fi def wax jooja julliwul wax jooja jarul dóor sa doom nee naa nag fi may daanele ku jël sa njaboot ni man Tiwaawan rek laa am naa ko rawale ji ba du génn Tiwaawan nga dem teg ko ci loxoy Iran Ndaw bu ñibbisee moom sa doom Tiwaawan ak wanagam lay yemale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf